lii mooy li Yeesu Kirist feeñal te mu tukkee ci yàlla ngir mu woon ay jaamam mbir yi dégmal di ñëw yónni na malaakam ngir mu xamal ko ab jaamam yowaana kooku mi ngi seede fii li mu gis lépp maanaam kàddu yàlla ak seede suñu ñu seedeel Yeesu Kirist barkeel ngeen yow mi jàng ak yéen ñiy déglu wax yi jóge ca yàlla te di sàmm li ñu ci bind ndaxte waxtu wi jege na man yowaana maa leen di bind yéen juróom ñaari mboolooy ñi gëm te nekk ci diiwaanu asi ne yiw ak jàmm féete ci yéen jóge ci yàlla moom ki nekk ki nekkoon démb te di ñëw ëllëg yiw woowu ak jàmm jooju ñoo ngi tukkee it ci juróom ñaari xeli yàlla yi nekk ci kanamu ngangu nem yàlla tukkee it ci Yeesu kirist seede bu takku bi moom taaw bi maanaam ki jëkka dekki di buuri buuri ci kaw suuf yépp na ndam li ak nguur gi féete ak Yeesu kirist ba faw moom mi bëgg te yiw ci sunuy bàkkaar ak deretam ji tuuru te def nu ay buur nuy jegeen yàlla baayam di ko jaamu amiin gis leen mi ngi ñëw ci niir yi te ñépp dinañu teg seeni bët ci moom ba ci ñi ko jam sax te xeet yi nekk ci kaw suuf yépp dinañu jooy ndax moom waaw amiin boroom bi yàlla nee na man yàlla maay alfa ak omega maay ki nekk ki nekkoon démb te di ñëw ëllëg man aji kàttan ji man yowaana seen mbokk di seen nawle ci fitna ci nguur ak ci muñ yu nu am ndax sunu booloo ak yéesu maa nga nekkoon ca dun ba ñuy wax Patmos wàcce woon nañu ma fa ndax li ma doon waare kàddug yàlla tey seedeel yéesu xelum yàlla soluma ci bésu borom bi te noonu ma dégg ci sama gannaaw baat bu xumb nigliit naan bindal ci téere li ngay gis te yónnee ko juróom ñaari mbooloo yi ñi gëm ca dëkk efes samirn pergaam catiir sard filadelfi ak lawdise noonu ma gestu ngir seet ku doon wax ak man ba ma gestoo yem ci juróom ñaari làmpi diwlin yu wurus gis ku taxaw ci biir làmp ya nuroo ak doomu nit mu sol mbubb mu gudd takk ngeñaayu wurus ci ndiggam boppam ak karawam weex tàll ni perkaal ay bëtam di xuy ni safara ay tànkam mel ni xànjar bu yanj bu ñu xelli baatam di riir ni duusi géej mu yor ci loxool ndejooram juróom ñaari biddiiw jaasi ñaari boor yu ñaw di génn ci gémmiñam xarkanamam leer nàññ ni jant bu njolloor naka laa ko gis di daanu ci ay tànkam ni ku dee waaye mu teg loxo ndejooram ci sama kaw ne ma bul ragal dara maay ki jëkk te maay mujj maay aji ki dund dee woon waaye maa ngi di dund ba faw yor caabi dee ak ju barsàq kon nag bindal li nga gis li am léegi ak li nara ami gannaaw gi juróom ñaari biddiw yi nga gis ci sama loxol ndeyjoor ak juróom ñaari làmpi diwlin yu wurus yi ay mbooti yàlla lañu te lii lañuy tekki biddiw yi ñoo di malaakay juróom ñaari mbooloo yi ñi gëm juróom ñaari làmp yi ñoo di juróom ñaari mbooloo yi bindal malaakam mbooloom ñi ci dëkku efes ne ko ki téye juróom ñaari biddiw yi ci loxol ndeyjooram tey dox ci diggu juróom ñaari làmp diwlin yu wurus yi nee na xam naa say jëf sa liggéey ak sag muñ xam naa ne mënuloo dékku ñiy def lu bon seetlu nga ñi tuddoo samay ndaw ba gis ne ay naafeq lañu xam naa it ne muñ nga ba dékku coono ndax sama tur te xàddiwoo waaye li ma naqari ci yow moo di sa mbëggeel wàññeeku na del fàttaliku kon fa nga daanoo rëccul te def nga daan def bu jëkk soo rëccuwul dinaa dikk ci yow jële sa làmp ci barab ba mu nekk waaye lii neex na ma ci yow sib nga ni man li ñoom di jëf yow mi am ay nopp déglul li xelum yàlla di wax mboolooy ñi gëm ku daan dinaa la may nga lekk ci garabu dund gi nekk ci jataayu yàlla bindal malaakaam mbooloom ñi gëm ci dëkku samirn ne ko ki jëkk te mujj ki deewoon te dekki nee na xam naa sa coono xamit sa néew doole moona yaa ka dunle ñoo ñu tuddoo yawut xam naa ñaawteef yi ñu teg ci sa der ndajeem seytaane la bu ragal li nga nar a daj seytaane dina dugal kaso ñenn ci yéen ngir wut leen fiir diiru fukki fan dingeen am coono nanga takku ba àttan cee dee ma jox la kaalak dund gi yow mi am ay nopp déglul li xelum yàlla di wax mboolooy ñi gëm ku daan doo loru ci ñaareelu dee bindal malaakam mbooloom ñi gëm ci dëkku pargaam ne ko boroom jaasi ju ñaw ji am ñaari boor nee na xam naa fa nga dëkk di fa seytaane samp nguuram moona jébbalu nga ci sama tur te weddiwoo sa ngëm ci man ba ca fan ya reye sama seede bu takku ba ci seen dëkk di dëkku seytaane waaye am na lu ma naqare ci yow moo di uuf nga foofa gaa yuy sàmm njàngaleem balam moo mi jàngaloon balaak mu sóob bànni israyil ci bàkkaar xiir leen ci lekk ñam wu ñu tuuroo xërëm yi ak ci njaaloo te am nga noonu itam ay nit ñuy sàmm njàngaleem ñoom nikola rëccul kon lu ko moy dinaa dikk ci yow léegi te xeex ak nit ñooñu ak jaasi gi génn ci sama gémmiñ yow mi am ay nopp déglul li xelum yàlla di wax mboolooy ñi gëm ku daan dinaa la jox nga lekk dund bi ñuy wax mànn te mu nëbbu te dinaa la jox xeer wu weex ci kaw xeer woowu bindees na ci tuur wu bees wu kenn xamul ku dul ki ko jot bindal malaakam mbooloom ñi gëm ci dëkku catiir ne ko doomu yàlla ji ay bëtam di xuy ni safara tey tànkam di lerax ni xànjar nee na xam naa say jëf sa mbëggeel sa ngëm sag muñ ak ni nga farloo ci sa jaamu yàlla xam naa say jëf yu mujj ni ñu ëppe yu jëkk ya waaye li ma naqari ci yow moo di danga bàyyi yasabel jigéen joojuy tuddoo yonent di jàngale ak a réeral sama jaam yi ngir ñuy sóobu ci njaaloo te di lekk ñam wu ñu tuuroo xërëm yi may naa ko ab diir ngir mu tuub njaaloom waaye bañ na kon nag dinaa ko tëral ci lalu metit te ñiy ànd ak moom di njaaloo suñu tuubul jëfi jigéen jooju dinaa leen teg naqar wu mag dina rey ay doomam te mboolooy ñu gëm yépp dinañu xam ne man maa di kiy natt xol yi ak xalaat yi te dinaa fay ku nekk ay jëfam waaye yéen ñépp ñi des ci catiir te topp leen njàngale moomu te gëstuwuleen loolu ñu naan mbiri seytaane yu xóot yi maa ngi leen di wax ne duma leen yeen beneen yeen bu dul bii jàpp leen ci li ngeen jàpp ba kere may ñëw ku daan tey sax ci samay jëf ba ca mujj ga dinaa ko jox sañ-sañ ci xeet yi dinaa leen jiite ak yetu weñ tojaaj leen ni ñuy tojee ndaal kew ni ma jële sañ-sañ ci sama baay dinaa ko jox it biddiw wu njël yow mi am ay nopp déglul li xelum yàlla di wax mbooloo ñi gëm bindal mbooloom ñi gëm ci dëkku sàrd ne ko ki yor juróom ñaari xeli yàlla yi ak juróom ñaari biddiw yi nee na xam naa say jëf dañu la teg kuy dund fekk dee nga yeewul te dëgëral li des ci yow tey waaja dee ndaxte gis naa ne say jëf matuñu ci sama kanamu yàlla fàttalikul kon kàddu yàlla gi nga jot te dégg ko sàmm ko te réccu soo weyee ci nelaw nag dinaa ñëw nib sàcc te doo xam wan waxtu lay doon moona am nga foofu ci sàdd nit ñu néew ñoo xam ne tilimaluñu seen mbubb ñooñu dinañu ànd ak man sol lu weex ndaxte yeyoo nañu ko ku daan dinga sol mbubb mu weex ni ñoom te duma far sa tur ci téereb dund bi waaye dinaa nangu ci sama kanam mu baay ak ay malaakaam ne bokk nga ci man yow mi am ay nopp déglul li xelum yàlla di wax mboolooy ñi gëm bindal malaakaam mbooloom ñi gëm ci dëkku filadelfi ne ko aji sell ji di aji dëgg ji nee na moom mi yor caabi daawuda ji muy tëj te kenn du ko tijji nee na xam naa say jëf ubbil naa la bunt te kenn du ko mën a tëj xam naa ni bariwuloo doole waaye sàmm nga sama kàddu te weddiwoo ma dinaa def ba ñenn ci ñi bokk ci ndajeem seytaane te tuddoo yëwut fekk dañuy fenn dinaa leen ñëwloo ñu sukk ci sa kanam nangu ne bëgg naa la ginnaaw muñ nga ni ma la ko dénke woon man itam dinaa la yiir ci jamono ji musiba mi di wàcc ci duniyaa bépp ngir nattu waa àddina léegi ma ñëw sàmmal li nga yor ngir kenn bañ laa xañ sa kaalaak ndam ku daan dinaa la samp ni aw jënu néeg ci sama kër yàlla te doo fa génn mukk dinaa bind ci yow turu sama yàlla ak turu dëkku sama yàlla mu di yerusalem gu bees giy jóge ca asamaan ca wetu sama yàlla di wàcc dinaa bindit ci yow sama tur wu bees yow mi am ay nopp déglul li xelum yàlla di wax mboolooy ñi gëm bindal malaakaam mbooloom ñi gëm ci dëkku lawdise ne ko ki ñuy wax amiin ji di seede bu takku bi te dëggu ki di ndeyi bindu fi yàlla yi nee na xam naa say jëf xam ne seddoo tàngoo mënoon nga sedd mbaa nga tàng waaye ndax li nga nugg tàngoo seddoo dinaa la yàbbi yaa ngi damu naan am naa alal duunle naa soxlaatuma dara fekk xamuloo ni torox nga miskiin ñàkk gumbate rafle moo tax maa ngi lay xiirtal nga jënd ci man wurus wu ñu xellee ci safara ngir nga doonle te nga jënd yére yu weex ngir nga solu ba sa gàcceeg rafle bañ a feeñ ak tuufaay booy diw ci say bët ngir mën a gis man maay yedd di yar ñépp ñi ma bëgg farlul kon say bàkkaar maa ngi nii taxaw ci bunt bi di fëgg ku dégg sama baat te ubbi bunt bi dinaa dugg reerandoo ak moom moom it mu reerandoo ak man ku daan dinaa la toogloo ci sama wet ci sama gàngune ni ma xeexe ba daan man ci sama bopp te toogandoo ak sama baay ci gànguneem yow mi am ay nopp déglu li xelum yàlla di wax mboolooy ñi gëm ginnaaw loolu ma xool gis bunt ubbeeku ca asamaan si baat booba ma déggoon muy wax ak man mel ni liit ne ma yéegal fii ma woon la li war ñëw ginnaaw gi ca saa sa xelum yàlla solu ma noonu ma gis gàngune ca asamaan te am ku ca toog leeraayam mel ni jamaa ak per bu xonq te xon gu leer ni per bu wert wër gàngune ma yeneen ñaar fukki gàngune ak ñeent wër ko te ca kaw gàngune ya ñaar fukki mag ak ñeent toog sol mbubb yu weex ak kaalaay wurus ci seen bopp ay melax ay riir ak ay dënnu di jibe ca gàngune ma ca kanamu ngàngune ma amoon na fa juróom ñaari làmp yu yànj di juróom ñaari xeli yàlla yi amoon na it ca kanamu gàngune ma lu mel ni géej gu leer ni weer bu set ba mel ni seetu ci li wër gàngune ma sës rëkk amoon na fa ñeenti mbindeef yu fees ak ay bët ci kanam ak ci ginnaaw mbindeef mu jëkk maa nga meloon ni gaynde ñaareelu mbindeef mel ni yëkk ñetteelu mbindeef yor kanamu nit ñeenteel ba di nuroog jaxaay juy naaw ñeenti mbindeef yi am nañu ku nekk juróom benni laaf te ñu nga fees ak ay bët li leen wër lépp ba ci seen roni laaf guddi ak bëccëg duñu noppeek naan borom bi yàlla aji kàttan ji moo sell sell sell moom ki nekkoon démb ki nekk tey te di ñëw ëllëg saa su mbindeef ya di màggal ka toog ca gàngune ma tey dund ba faaw te di ko kañ ak a gërëm ñaar fukki mag ña ak ñeent di dëpp seen jë ca kanamu ka toog ca kaw ngàngune ma ñu di ko jaamu moom mi dund ba faw di sànni seeni kaalaay ndam ca kanamu ngàngune ma naan yàlla sunu boroom yaa yeyoon ndam taraanga ak kàttan ndaxte yaa sàkk lépp te ci sa coobare lépp nekke te ci lañu leen sàkke noonu ma gis ca loxool ndejooru ko toog ca ngàngune ma téere bu ñu bind biir ak biti tey ko juróom ñaari yoon ak sondeel noonu ma gis malaaka mu am doole muy xaacu naan ku yeyoo dindi tayu yi te ubbi téere bi te amul kenn muy ci asamaan si muy ci kaw suuf muy ci biir suuf ku mëna nu ubbi téere bi mbaamu xool ci biir ma jooy jooy yu metti ndax li kenn yeyowul woona a ubbi téere bi mbaamu xool ko noonu kenn ca mag ña ne ma bul jooy xoolal gaynde giiru yuda ki soqi ko ci daawuda daan na ba am sañ-sañu dindi tayu yi te ubbi téere bi noonu ma gis mboote mu mel ni dañu ko rendi woon mu taxaw ca digg gàngune ma ñeenti mbindeef ya seq ko mag ña wër ko mbote ma amoon na juróom ñaari béjjén ak juróom ñaari bët ñu di juróom ñaari xeli yàlla yi ñu yónni ci àddina sépp mbote ma ñëw jël téere ba nekkoon ca loxool ndejooru ka toog ca ngàngune ma ba mu jëlee téere ba ñeenti mbindeef yi ak ñaar fukki mag ñi ak ñeent daldi dëpp seen jë ca kanamu mbote ma ku nekk yor xalam ñu yorit àndi wurus yu fees ak cuuraay yu doon misaal ñaani gaay yàlla ya ñu daldi woy woy wu bees naan yeyoo nga jël téere bi te dindi tayu yi ndaxte rees na la te jotal nga yàlla ak sa deret ay nit ñu bokk ci bépp giir kàllaama réew ak xeet def nga leen ay buur ñuy jegeñ yàlla sunu boroom di ko jaamu te dina ñu nguuru ci àddina si ma xool noonu dégg baatu malaaka yu bari yu ëppoon alfuni alfuni junni malaaka ya wër ngànguune ma ak mbindeef ya ak mag ña ñuy xaacu naan mbote ma ñu rendi woon yeyoon kàttan alal xel doole teraanga ndam ak cant ma dégg itam mbindeef yi nekk ci asamaan ci kaw suuf ci biir suuf ci géej gi mbindeef yépp naan na cant teraanga ndam ak nguur féete ak ki toog ci ngànguune mi ak mbote mi ba faw ñeenti mbindeef ya naan amiin mag ñi sukk di màggal noonu ma gis mbote ma dindi tayu gu jëkk ga te ma daldi dégg kenn ca ñeenti mbindeef ya di wax ak baat buy riir ni dënnu naan ñëwal ma xool noonu gis fas wu weex gawar ba yor ak fit ñu jox ko kaalaak ndam mu daldi dem moom jàmbaar ngir daani mbote ma dindi na ñaareelu tayu ga ma dégg ñaareelu mbindeef ma naan ñëwal noonu weneen fas génn diwu xonq gawar ba jot sañ-sañu jële jàmm ci kaw suuf ngir nit ñi di reyante ci seen biir jox ko jaasi ju mag mu dindu ñetteelu tayu ga ma dégg ñetteelu mbindeef ma ne ñëwal ma xool gis fas wu ñuul gawar yor ab peesekaay ma dégg baat bu jollee ca diggante ñeenti mbindeef ya naan peyug bëccëgu lëmm ngir benn kilob ceeb peyug bëccëgu lëmm ngir ñetti kiloy dugub waaye bul yàq diw gi ak biiñ bi mu dindi ñeenteelu tayu ga ma dégg ñeenteelu mbindeef ma naan ñëwal ma xool noonu gis fas wu wert gawar baa nga tuddoon dee te barsàq nga toppoon ci moom ñu jox ko sañ ci ñeenteelu xaaju àddina sépp ngir mu faat ak jaas yi xiif mbas ak rabi àll yi mu dindi juróomeelu tayu ga ma gis ca suufu taabal jañuy lakke cuuraay yi ñu ñu boom ndax seede si ñu doon sàmm ak li ñu gëmoon kàddu yàlla ñuy xaacu naan boroom bu sell bi te dëggu ba kañ ngay nekk àtte bi te feyul nu sunu deret ci waa àddina ñu jox leen ku nekk mbubb mu weex daldi leen ne ñu muñ tuuti ba kere seeni nawle ñëw te lim bi mat seeni nawle ci liggéey bi di seeni mbokk yu waa àddina waroon a boom ni ñoom ma xool ba muy dindi juróom benneelu tayu ga noonu mu am yëngu yëngu suuf bu mag jant bi ñuul ni këriñ weer yu xonq curu ni deret biddiw yi fàqe asamaan di daanu ci kaw suuf ni doomu garab yu yolox di wadd bu ko ngelaw lu metti dee yëngal asamaan si dellu ni basaŋ gu ñuy taxañ tund yépp ak dund yépp randu fa ñu nekkoon noonu buur yi àddina si kilifa yi njiiti xare yi boroom alal yi boroom kàttan yi jaam yi ak gor yi ñépp làqatu ji ci xunt yi ak ci ron doj yi tund yi ñu naan tund yi ak doj yi daanu leen ci suñu kaw te nëbbu nu bëti ki toog ci ngàngune mi ak meru mbote mi ndaxte bis bu màgg bi seen mer di feeñ agsi na ku ci mëna rëcc ginnaaw loolu ma gis ñeenti malaaka yu taxaw ci ñeenti xiblaay àddina si ñu téye ñeenti ngelawi àddina ngir ngelaw du wol ci kaw suuf ci géej mbaa ci genn garab ma gis it meneen malaaka muy yéeg jóge penku yor màndargakaayu yàlla jiy dund mu daldi wax ak baat bu xumb ñeenti malaaka ye ñu joxoon sañsañ ñu yàq suuf si ak géej gi ne leen bu leen yàqagun suuf si ak géej gi ak garab yi nég leen ba ñu def màndarga ci jëwu ñiy jaamu yàlla sunu borom noonu ma dégg limu ñu ñu màndargaal ñu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ay junni ñu jóge ci giir yi bànni israyil yépp junni ak ñaar lañu màndargaal ci biir giiru yuda fukki junni ak ñaar ci giiru ruben ak ñaar ci giiru gàdd fukki junni ak ñaar ci giiru aseer ak ñaar ci giiru naftali fukki giiru manase fukki junni ak ñaar ci giiru simeyon fukki junni ak ñaar ci giiru lewi ak ñaar giiru isakar fukki junni sabilon ak giiru yusufa ak giiru bensamin ginnaaw loolu ma xool gis mbooloo mu réy ba kenn mënu ko waññ ñu bokk ci xeet yépp giir yépp réew yépp ak kàllaama yépp taxaw ca kanamu ngàngune ma ak mbote ma ñu sol ay mbubb yu weex di màggal te di yëngal ay cari garab ci seeni loxo naan mucc gaa ngi ci yàlla sunu boroom bi toog ci ngàngune mi ak ci mbote mi noonu malaaka yépp taxaw wër ngàngune ma ak mag ña ak ñeenti mbindeef ya ñu dëpp seen jë ca kanamu kàngune ma di jaamu yàlla naan amiin na cant ak ndam xel ak ngërëm taraanga kàttan ak doole féete ak yàlla sunu boroom ba faw amiin noonu kenn ca mag ña ne ma ñu sol mbubb yu weex yi ñooy ñan ak fan lañu jóge ma ne ko sang bi xanaa yaa ko xam mu ne ma ñoo di ñu jóge seen metit wu réy wa fóot nañu seeni mbubb ba weexal ko ci deretu mbote ma loolu moo tax ñu nekk ci kanamu ngàngu neem yàlla di ko jaamu guddi ak bëccëg ci këram te ki toog ci ngàngune mi dina leen yiir dootuñu xiif dootuñu mar jant mbaa weneen tàngaay du leen lakk ndaxte mbote mi nekk ci digg ngànguune mi dina leen sàmm yóbbu leen ci bëti ndoxum dund ma te yàlla dina fomp bépp rangooñ ci seeni bët mbote ma dindi na juróom ñaareelu tayu ga asamaan si ne selaw lu mat genn wàllu waxtu noonu ma gis juróom ñaari malaaka yi taxaw ca kanamu yàlla ñu daldi leen jox juróom ñaari liit ba loolu amee meneen malaaka ñëw taxaw ca wetu taabal dañuy lakke cuuraay yor ànd cuuraayu wurus ñu jox ko cuuraay lu bari ngir mu boole ko ak ñaani gaay yàlla yépp joxe ko ci kaw taabalu wurus dañuy lakke cuuraay te nekk ca kanamu ngànguune mi noonu saxarus cuuraay li gilee ca loxo malaaka ma ànd ak ñaani gaay yàlla ya jëm ca kanamu yàlla malaaka ma jël àndu cuuraay ba duy ko ak ay xal ca taabal ja ñuy lakke cuuraay daldi koy sànni ci àddina noonu mu am ay dënnu ay riir ay melax ak yëngu yëngu suuf ba mu ko defee juróom ñaari malaaka ya yoroon juróom ñaari liit ya daldi defaru di waaja liit malaaka mu jëkk ma wol ci liitam noonu ñu sànni ci àddina yuur ak safara yu ñu boole ak deret ba tax benn ci ñetti xaaju suuf si lakk benn ci ñetti xaaju garab yi lakk te ñax mu naat mépp lakk ñaareelu malaaka ma wol ci liitam noonu ñu sànni lu mel ni tund safara wu rëy mu daanu ci géej gi benn ci ñetti xaaju géej gi soppeeku deret benn ci ñetti xaaju mbindeef yi nekk ci géej gi dee te benn ci ñetti xaaju gaal yi yàqu ñetteelu malaaka ma wol ci liitam noonu biddiw bu réy yàññi ni jum xawee asamaan daanu ci benn ci ñetti xaaju dex yi ak ci bëti ndox yi biddiw boobu mi ngi tuddoon wextan nit ñu bari naan ci ndox mi daldi dee ndaxte ndox mi dafa daldi wex ñeenteelu malaaka ma wol ci liitam noonu dóorees benn ci ñetti xaaju jant bi ak benn ci ñetti xaaju weer wi ak benn ci ñetti biddiw yi ba tax benn ci xaaju leer gi lëndëm bëccëg bi ñàkk leer diiru benn ci ñetti xaajam guddi gi ñàkk leer diiru benn ci ñetti xaajam ma xool noonu dégg jaxaay juy naaw ci digg asamaan si naan ak baat bu xumb musiba musiba musibaa ngi ci kaw waa àddina ndax liit yi yeneen ñetti malaaka yi di wol juróomeelu malaaka ma wol ci liitam noonu ma gis ñu jox caabi kàmb gu xóot gi benn biddiw bu xawewoo woon asamaan daanu ci kaw suuf biddiw ba ubbi buntu kàmb gu xóot ga noonu saxaar jollee ca su mel ni saxarus puur bu mag jant bi ak jawwu ji lépp lëndëm ndax saxarus kàmb ga ay njéeréer génn ca saxaar sa tasaaroo ci biir àddina si ñu jox leen kàttan gu mel ni kàttanu jànklaar ñu sant leen ñu bañ a laal ñax mi ci kaw suuf mbaa genn gàncax wala genn meññeef waaye ñu jublu rekk ci nit ñu amul màndargaam yàlla ci seen jë sant leen ñu rey leen waaye ñu mitital leen diirub juróomi weer te mitit woowu ñuy indi temboona ak mitit wi dal nit bu ko jànkalaar fite ca jamono yooya nit ñi dinañu sàkku dee waaye duñu daje ak moom dinañu bëgg a dee waaye dee da leen di daw njéréer ya nag dañuy nuroo ak fas yu ñu waajal ngir xare am nañu ci seen bopp lu mel ni kaalaay wurus te seen xarkanam mel ni gu nit seeni kawar mel ni yu jigéen seeni bëñ mel gaynde takk nañu ci seen dënn lu mel ni kiiraayu weñ te coow la seeni laaf di def mel ni coowu sareeti xare yu bari yu ñu takk fas di xeexi am nañu ay geen yu am ay fit ni jànklaar te ca la seen kàttan nekk ngir mitital nit ñi diirub juróomi weer buur njéeréer yi mooy malaakam kàmb gu xóot gi moom lañu tudde ci làkku yawut abaddon ak ci làkku grek apoleyon liy tekki yàqkat musiba mu jëkk mi jàll na yeneen ñaari musiba yaa ngi ñëw juróom benneelu malaaka ma wal ci liitam noonu ma dégg baat bu jóge ci ñeenti mbéjjén yi nekk ci koñ taabalu wurus dañuy lakke cuuraay te féete kanamu yàlla mu ne juróom benneelu malaaka ma yoroon liit yiwil ñeenti malaaka ya yeewe ci efraat dex gu mag ga noonu ñu daldi yiwi ñeenti malaaka ya ñu waajaloon ngir at moomu weer woowu bés boobu ak waxtu woowu ngir ñu rey benn ci ñetti xaaju nit ñi limub gawar ga doon xare ji mat na ñaari alfuni alfuni dégg naa lim ba nii laa gise ci peeñu bi fas ya ak ña leen war ñu sol kiiraay yu xonq ni safara bulo ni saxaar ak mboq ni tamarax boppi fas yaa nga doon niroog boppi gaynde safara saxaar ak tamarax di génn ci seeni gémmiñ benn ci ñetti xaaju nit ña ci ñetti musiba ya ci safara saxaar ak tamarax yi génn ci seeni gémmiñ ndaxte kàttanu fas yaa ngi ci seeni gémmiñ ak ci seeni geen geen yaa nga mel ni ay jaan am ay bopp te ñoom lañuy mititale nit ñi nit ñi rëcc ci musiba yooyu taxul sax ñu tuub seeni jëfi loxo noppuñu di jaamu rab yi ak nataali xërëm yi ñu defare wurus ak xaalis ak xànjar ak xeer ak dénk yoo xam ni mënuñoo gis mënuñoo dégg mbaa ñu dox te nit ñooñu tuubuñu seen boom seen xërëm seen njaaloo mbaa seen càcc noonu gis meneen malaaka mu am doole muy wàcce asamaan làmboo niir xontim ko te xar kanamam melni jant te ay tànkam mel ni jumi safara yor na benn téere bu ndaw bu ñu ubbi mu teg tànku ndejooram ci géej gi tànku càmmoñam ci suuf si di xaacu ni gaynde guy yëmu naka la juróom ñaari dënn yi di jib naka la juróom ñaari dënn yi di jib may waaj a bind waaye ma dégg baat bu jóge asamaan naan ma li juróom ñaari dënnu yi wax na nekk kumpa bu ko bind noonu malaaka ma gis mu taxaw ci géej gi ak suuf si yëkkati loxool ndejooram mu jëm asamaan daldi waat ci kiy dund ba faw ki sàkk asamaan si suuf si ak géej gi ak li ci nekk lépp mu ne néggandiku wees na waaye jamono ju juróom ñaareelu malaaka ma wole ci liitam ndogalu yàlla dina mat ni mu ko waxe woon ay jaamam yonent yi ci kaw loolu baat ba ma déggoon ca asamaan waxaat ak man ne ma demal jël téere bi ñu ubbi ci loxoob malaaka mi taxaw ci géej gi ak suuf si ma dem ca malaaka ma laaj ko téere bu ndaw boobu mu ne ma jël ko te lekk ko dina wex ci sa biir waaye dina neex ni lem ci sa gémmiñ noonu ma jël téere bi ci loxoob malaaka mi daldi ko lekk mu neex ci sama gémmiñ ni lem waaye bi ma ko wannee mu wex xat ci sama biir ginnaaw loolu ñu ne ma faw nga wax ci kàddug yàlla lu jëm ci réew yu bari xeet yu bari kàllaama yu bari ak buur yu bari bi loolu amee ñu jox ma nattukaay bu mel ni yet ne ma jógal natt kër yàlla gi ak barab bi ñuy rendee sarax si te wañ ña fay jaamu yàlla waaye bàyyil ëttub bitib kër yàlla gi bu ko nat ndaxte jébbalees na ko ñu dul yawut te dinañu nappaaje dëkk bu sell bi diirub ñeen fukki weer ak ñaar dinaa may sama ñaari seede yi ñuy wax ci kàddu yàlla sol ay saaku di toroxlu diirub junni ak ñaar téeméeri fan ak juróom benn ñaari seede ya nag ñoo di ñaari garabi olive te it ñooy ñaari làmp diwlin yi taxaw ci kanamu boroom suuf si su leen kenn bëggee def lu bon saafaraay génn ci seen gémmiñ daldi lakk seeni bañaale te ku leen bëgg a def lu bon noonu lay wara deeyee am nañu sañ-sañu téye taw bi diiru fan yi ñuy wax ci kàddu yàlla am nañu it sañ-sañu soppi ndox yi deret te wàcce ci kaw suuf musiba yu nekk saa suñu ko bëggee bu ñu noppee seen seede rab yu jóge ci kàmb gi dina leen xeex rey leen te seeni néew dinañu nekk ci pencum dëkk bu mag boobu ñuy wooye ci misaal sodom ak it misara fa ñu reyoon seen boroom ci bant te diirub ñetti fan ak genn wàll bépp réew giir kàllaama ak xeet dinañu seetaan seeni néew te duñu bàyyi kenn suul leen waa àddina si dinañu bég ci seen dee di ndokkelente ak di jokkalante ay may ndaxte ñaari yonent ya lakkale nañu waa àddina waaye bi ñetti fan ya ak genn wàll wéyee xelum dund jóge ca yàlla solu leen ñu jóg taxaw noonu tiitaange gu réy jàpp ñi leen doon seetaan ñaari seede ya dégg baat bu xumb ci asamaan naan leen yéeg fii noonu ñu yéeg asamaan ci aw niir seeni bañaale di seetaan ca saasa am yëngu-yëngub suuf bu mag te benn ci fukki xaaju dëkk ba daldi màbb juróom ñaari junni nit dee ca yëngu-yëngub suuf ba te ña ca des tiit daldi màggal yàllay asamaan ñaareelu musiba mi wéy na ñetteel baa ngi nii di ñëw juróom ñaareelu malaaka ma wol ci liitam noonu baat yu xumb jib ci asamaan naan nguuru àddina jébbalaat nañu ko sunu boroom ak almaseem te dina nguuru ba faw ñeent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 ba kere juróom musiba ye juróom ñaari malaaka taawu di noonu ma dégg baat bu xumb bu jóge ca kër yàlla ga naan juróom ñaari malaaka ya demleen sotti ci àddina juróom ñaari ndabi merum yàlla yi noonu malaaka mu jëkk ma dem sotti ndabam ci àddina ba woppi taab ju bon te metti dal nit